أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق وخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أئمة الشر منها من غيرهم بل يسألني من غيرهم sargal bi ñu am rek ñu koy xool yonent yàlla Moussa rek ñu ko neexal ne ko eh yow jabar bu mag bi nga xam ne mboolem jabar yëpp yaa ci gën a kawe ci xam-xamu jabar pour ma ñaan danaa ñaan rabbaka borom sa bi ma ay da di gëlamu jëm ci indaka ci yow ina naa naka lu mu tëdd na way jublu mu ñaan yàlla wàcce di ñu mu gëm rek ba ngaa ñu jublu ngaa ñu gëm wala ma kator naa ba nu mu ñu gëm ma ci ñaan ak Moussa anu mu gëm ci yéen ala ba ba mu gëm daa mu la fekk yan ci sama lu mu tudd nga ne kaw te bi ci ñëw waaw ñu ñaan yàlla yàlla yëpp di ko rek ñu ne leen weer ndax danañ doom de ñu dem ñu ñu dem ci rek ba mu juróom ñeen ci kaw te ba nga xamee ne loolu am na wanaa daa da xoote firaam firaam na firaam naa ngay iigaru na ci xaw mu mu ci yërëm ni xaaral mu wax ne yaa xaw bi ee ni sama ee tuub xale te ni géen ñaan moom mu tudd rek moom ni la ndax du may buru nit la dinaa kay waa ji nga xaar ñu yaram du ñu nit la teg ñu dana mu daw ñu tax ñu ci tuuti tax sama ku moom ñu nit la ñu rëglu ñu di daw ci sama ron taax yi ñu ne yow mu ne afalaa ku tira na ñu tere ngeen ci sama màgg bi xanaa xamu leen ne man ku màgg laa am ana man am ana lu man ay lu ma gën li naa daa ci ñu am léegi ñu ngi laaj nga xam ne soo ko may ñu ay xeetu la mu Moussa ñu teg ñu dara du buur dara amul ci bët yi jeex man ma moom ñu laaj ñu ngi la dana ngeen man moromam ñu laa dara yaakaar ñu jëlee ci mu ngi di di wax xam ne dafa doon moom dañu di wax bala laa ko teer ñu tere tamit andi ci kawam affaire rek ñu ay lam ñu daa ñu ci ko ñu su fekkee ñu doon yàlla la ndawal buur man ko ngay buur waaw képp koo xam ne maa ngi leen ñu ko gisee ñu ko mos a tilam ñu xam ne ndaw si xamal ñu kaa moom ne yàlla ko ñu am sax ay lam ci loxo day gërëm aw jaay te nit ma ànd ak moom al malaaka bi malaaka muxtali ñu ngi ñu lay toppale mbaa malaaka yi ñu ànd ak moom ba di ko dëggal ñu xam ne yàlla ko ñu sax fa tam biddi xaw ma woon ñu dañ ne paa paa xaw tam topp ko de waxi caaxaaram yooyu biddi li ko ci ñun ñëpp ñu nangu ndax wax rek ànd ak moom nga di Moussa ñu am naka nga am wala ma asafuna waaye bañu merlooye ñu yàlla ba xam naa fay na mu leen ci ñoom day ba nga xam ne merloo na yàlla yàlla fay na ci ñoom de lan la leen def ba arab naam tan labal leen aj maye na nit ñuy boole ba yaam naam tan def leen solofan ñuy way dawi de yàlla yi labal leen jëm baaru xabdoom ñoom ñëpp ñu ngi waxtaan gannaaw bu nekk ñuy jënd bu ma ko doon tey léegi laa ko doon Birame Missirah rek la moom kat moo tax de Seydina Omar bu dee ba moom Missirah am na benn kenn ci saaba yi mu fal ko Missirah ne ko demal yaay góor yi Missirah defal ba mu ñëwee ba kër ga ne ah dëkk bi la Sera lu mu ci solo ñu ne waaw mu ne aw ma ci soxla waaw ñu ne ko moom yedd ko de waaw mu ne waaw ndax moom moom Missirah ndax mi Missirah bi ci sama loolu lay daw mu ne wallaay du du ma dawal mi Missirah rek. keneen daw miiru Misra moom miir bi daf ko fekk muy daw rek mu di ko tiitaroo bu jamal Abdunaa Sira ko man moom mi dawal miiru Misra te sabla ari ma taxu dem ci miir bi te muy ci biiran miir ba ila qawmuka wala nadriba ibnu Maryam masalan kooku lu ko waxal wàcc na ca laa yow ci saaro lem jaay ba yàlla waxee ne innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam yéen lépp lu ngeen di jaamoon lu yàlla mattam safara ngeen kéefar yi yàlla fa leen ñëw ci safara boole leen ak seen yàlla yi yàlla yi ko bu leen jëf amul bakkaar waaye xoroxale ko ñu doon doon jaamu dëgg yàlla jibbi yàlla ji ñu doon yaakaar soo bokkee moom dugg safara xam nga ne dootul yàlla da yàlla waxee loolu nag ñi Abdoulaye ibn Sibara waxkat bu rëy la doon ci Makka ñu ñëw ne Quraysh fay leen ma man na fa leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wax ñu ne ko doo bëgg mu ne ñu ñu jox ko téeméeri jëlem ñu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yaa wax ne ñu nag ñu ñuy jaamu yëpp safara lañ jëm yonent bi ne ko waaw mu ne ko nasara jaamu nañ Isa yow jaamu nañ wata yaaram yi jaamu nañ malaaka yi te Isa bu ma seeroon malaaka yëpp àndee dem safara comme si suñu yàlla yi demee sëñ safara suñu xol sedd waa xëy naa la not naa la ci wax buur ne wala maa soy la ka defee see ibnu Mariama doon Mariama masaral muy yee ilaa am tuba fekk xaw mu ko aw nit sa yettu doona danañu reetaan min ñu te léeb woowu de ñu kontaan nag ñoom ñëpp ñu xaqataay waa am na su bara not na yonent bi de waqaalu dañu wax a aliatuna ay yàlla sunu ar moo gën amu waa moom ñu ne suñu yàlla yi gëmuñu insa wana bu insa demee safara bu suñu yàlla yee boo dem safara buur ne maa bara boobu defuñ ko lakk ña la ilaa jadalan la rek daggee de daggee rek leen ci dugal waaye ñu gën a xam wax yaaram de te xam nañ ne su fekkoon ni yàlla insa la nam ma ak xoseyru ak malaayika yi innakum wa man ta'buduna min dunillahi la yàlla waxe ndax mawtoolam lu waaw lu dundlu xelu ku ne xam na ne man lañ koy mawtoole de waaye ba yàlla ne maa xam na ne ci seen kër yi amul xel waaw ci la jëm de waa tey ñoom ñoo gën a dégg yaaram ñoo gën a xam ne maa suñu xeluwul la jëm waaye wax nañ ko rek pour bëgg a daggee dal day moom ñoom xaw ñu lañ xasi moom ñu war a xuloo de xuluwaale la ñu sot daal ci mu wër leen moom nee saa ilaa abdun dara jaam la anam naa bu nu xeewalaale ci moom ba jaam naa tan def ko masara ñu de di dali sa dañoo dali sa de Muusa insa du dara lu may suñu jaam rek duñu jox xeewal ba mu nekk ab yonent liñ ci tumuranke sama jaam rek la lu ma neex ma def ci moom def naa ci moom melawu tumuranke naam mooy amal ko ci lu dul bàyyi waaye loolu dayoog lu mu tegtale mooy kattanal yàlla rek waaye du yaageen nu lu mu jigéen du yaageen nu li ak yàlla waraw na saaw doon ko wanu la jaar naa ko fay def li mu gis wattu seen malaayika sama ay malaaka su neexoon yàlla mu dëkkal ay malaaka ci suuf ñu ngi ñu ci malaaka waaye ay mu dëkk dëkk moo tax yow ci ñu dëkk ñëw ci dara ci suuf yàqlu ko ñu dara ñëw ci leen de wa inna loo naka moom eesa la hen mun borom xam-xam la ñu saa ci bi penk de eesa xam na ne penk yàlla dana ñëw te balaa penk yàlla ñëw eesa dana wàccaat ci suuf am nañu jàng woy na la ko moom fa la alamu mandarga la di saa di ñeent de ak wàccam daal bés bu wàccee rek ñu xam ne tënkam yàlla jege na de wala tam taru na bu leen sikkiliyaa ci moom ba taloo ni da wax ma leen ne topp leen ma de asa di leen ma leen dugal ne jàpp yàlla laa ñu ñëpp yàlla ñu moom siraatu ñu yoon na mu sotti mu leen jiile wala yetu dannakum du sotti leen walu diine yàlla a seetaanu seetaanu de dina wana kama maa durum noonu la du juróom bu di juróom ne lakk ñee leen wala maa jaa ba dikkee xeesa xeesa di bay naa di juróom gisaat ak yoon xaala wax na mu ne ak ñi ci dikkal naa leen ci li suma ci yoonam sa ak yoon yi leen jiil wala mu bay naa ne noonu biral lakk ñee leen baadala biral laa saxtali ko na da ngeen wute fii ci moom ci mbiram tawreet de te faqu daa ragal leen yàlla waa ci yoon yi saxtali inna laa naka yàlla rabbi wa moom rabbi mooy borom sama wa rabbukum te mooy borom seen faamu doon leen ko jaamu de asayi wa salatam yoon la mu soppi mu daal di jubbe faxala sa kaw aayatu dannakum di soppi leen wanu diine yàlla a seetaanu seetaanu de dina wana kama maa duum noonu la du juróom bi di juróone lakk ñee leen wala maa jaa aba di kee sa ñeesa di bay naa di juróom bi saar ak yoon xaala wax na mu ne ak ñu ci ndikkal naa leen di li suma ci yonent ak yoonu min diine wala mu bay naa noonu biral lakk ñee leen daa dale ci leen laa la faxtalifu na da ngeen wute fii ci moom ci mbiram tawreet de te tax daa ragal leen yàlla waa teew ñu tax leen inna laa naka yàlla rabbi huwa moom rabbi mooy borom sama wa rabbukum te mooy borom seen faamu doo wóote leen ko jaamu de asayi wa salatam yoon la mu tax ñu daal jubbe fakkala fa kaw wute daa faamu kuréel ñun day ñu ci gannaaw seen gannaaw gannaaw lañ wute nekk ay kuréel kuréel te gole moo leen ñu réeral de waaw takk nasroor ak yaqoob ak malkaan nasroor mu ne ko xeesaa moo di yàlla waaw malkaan mu ne ko xeesaa doomu yàlla la waaw yaqoob mu ne ko Isa doomu yàlla la malkaan mu ne ko yàlla yàpp lañ de yàlla yàlla la Isa yàlla la ndeyam yàlla la moom moom moo leen wéral bu bulut ab yahud la yaqoob yi ma fa xew ci àddina rek waaw ci yahud la bàyyi ko ab yahud boo xam ne da doon xeex ak bani Israel la gannaaw boo Isa yëkkati ko day bàyyi ci ne ci diine ji wér mooy di jaamu yàlla xam ne yàlla mooy yàlla Isa yonentam yàlla la jaamu yàlla la loolu moo doon diine ji nga xam ne ñu gëmoon Muusa Isa yëpp ci lañ nekkoon diine nag di xarek ñoom pour bëgg leen a waaw bëgg leen a xalak dindi diine ci suuf ba mu xarek ñoom yàlla dimbalee jullit ñi fa yeg na li na amono ala adin fa loolu waaye li na di yàlla wax duñu xaree rek jullit ñi nag duñu xaree rek jullit ñi nag lépp ci biir yoonu noonu ci fas yéene nit ba ci taalibe Isa jël na jaat yi desoon ak ñu tam ñoom moo tax bañ jotee yonent bi rek ñoom ñu daal di jébbalu góoles nag ba mu génnee génn génn génn génn waaw yàq diine pour alak julli ñu mënu ko mu daal di ñëw feeñal ak jébbalu ñoom ci ñoom ne man léegi gëm naa diine maa ngi gisee lii daal di nekk nit ku toll nag ay ab jiw bu gàtt rek mu am dara yoo xam ne kenn amu ko mu daal di dem xëy benn bés ñu julli ci ba rek mu ne leen moo Nastoora ak Yaqub ak Malkaan ñetti taalibeem la ñoon moo Nastoor ne ko ñu doon doon yéen ñu ne léegi yàgg ñu ne waaw am naa ci loo xam ne kenn amu ko ci ñu ne waaw xam nga loolu du ma ko may. waaw benn posture boo xam ne ku ko fas rek loolu jëriñu mooy lan mooy islam mooy yàlla dafa laqu rek waaye mooy yàlla moo wàccoon ci ñun waaye delluwaat na waaye mooy yàlla yàlla juru Isa amul ba dugal lu mu ci boppam ne ko gëm nga ko mu ne waaw mu ne ko xawal ci delluwaat rek ci loolu daal di foo yàqu ne ko bu ma duggee gisee gisee ji yàggu ñu ne am naa ci jotuwaay boo xam ne kenn ci yéen jotu ko ñu ne waaw benn pësté fa ma ko may boo xam ne ku ko fasu doo jëriñu mooy lan mooy Isa doomu yàlla la de mas gaa gis doomu jaamul day Isa yàllaa ko gis da dugal ci moom boppam dugal loolu ci boppam ne ko xawal ci erwaade di wéy xaw malkaan ne ko bu ma duggee ci leen ñoom yàgg gañ naa leen yéen ñëpp lu ma ko may mooy turu bu ma am turu boobu mooy lan mooy yàlla yi yàtt lañ Isaa yàlla la Mariam yàlla la yàlla yàlla la yàlla yi yàtt lañ dugal loolu ci boppam ne ko xawal ci erwaade di wéy ne ko man na gis naa Isaa ci guddi gi feeñ na ma ne bu ma leen dénkee loolu ba noppi man naa la sama bopp jaamoo ko yàlla tey maa ngi rey sama bopp waaw jaamoo ko yàlla daal di rey boppam de ñoom moo tax ñu nekk ñetti kuréel ci woote fii ne Isa mooy yàlla ci di woote fii ne Isa doomu yàlla la ci di woote fii yàlla yet la ñetti kuréel yooyu waaw ñu nga xam ne waaw ñoo yàq diine yi waaw mati yonent yàlla ba rek ci defam ñu Israël yi ñoom ñu la xam ne ñoom ñu nga jàppoon ko diine yonent yàlla Isa loolu la ko mbugal léegi na war na si ñaareel la mu wet nañu dinaa saa bi yow indi mbugal ak ak ñu ne ak ñu ne ak yéen solo ma ngeen ñu ñu ñoom yëkkatu makka la faaka la rek seen ci en tant que yow mu ngi dikkal leen leen waxtu sam ci gerte yow ko ñoom laa solo ma am ci ñu waxtu dikkam de ndax laa xarija yow may ñu ne la kala ca pengal yàlla baadu mu ñaan seen adduna ñu am la ñu baal ñu ñaan ñaan de ci dal mu tax na ragal ragal na yàlla de pengal yàlla nag ñu dina bañ foofa mooy koo amoon ñu ñu gënoon a bañ mooy koo xaritoo doon jihaad ni yéefar yi yëpp di gën dafa ne rek xaritam dafa ko mënoon a rey rey ko ndax ku ci nekk xarit mooy daal xarit mooy koo xam ne da ngay yaakaar ci moom njëriñ ak mu tegal la lool bés koo xamee ne li nga yaakaar ci moom safaan la seen na rek mu daal di nekk noonu sa xarit bu la indee lool xañ la sa njëriñ keroog mu daal di soppeeku sa noonu ñoom nag yéefar yi bañ nekkee kën jëm yàlla nag ba sosoo ak ay safara ku ci ne gis leneen yëpp ñu leen faxa yëpp ñu leen faxa dara safara yëpp ci seen xarit la jëlee te dëgg la daanaka ku la neex ñu sa xarit rek jëfam rek ngay jëf ñu gëm di topp yàlla dañoo ànd ak ñu gëm di topp yàlla rek ñu weddi mooy yàlla itam dañuy guddi di ànd ak ñu gis ñu weddi ñu mooy yàlla rek moo tax de yéefar ñu ngi jëlee ca xarit ya gëm yàlla ma nga jëlee ca xarit ya moo tax de ñoom yéefar yi bañ leen tënkal yàlla nag seen xarit yi seen doon ci ñoom njëriñ waaw indi leen lor xañ leen seen njëriñ ñu daal leen yëfi noonu moo tax xarit yëpp ay noonu lañ tënkal yàlla lu may ñaan ñaragal yàlla nga gëmoon yàlla di topp yàlla ñoom it dañ am tuuru lu baax lépp jàpp nañ ne ci seen xarit yi la jóge moo tax rek ñoom seen xarit dina dëgër loolu moo tax yëpp xarit du ay ko ci yàlla rek lu tax rek waaw léegi gaa dina rawatina nag jëriñ ko yàlla wala ñu yàlla yàngoo nañ xaritoom ni yàlla yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ne aw dinañ ñoo jëriñ ko yàlla yonent yi lañ leen ne ak way sëriñ ñu ci jaar te ñoom di ay yonent yi di way sëriñ te dañ jege yàlla ñu dañu ñu ñëpp ñu tiit te ñoom duñ tiit waaw ñu ñu ñëpp ngi ragal te ñoom duñ ragal ñu ne way ñu yàlla ñu ne yonent ragal ñu leen ñu ne ay doom ay nit lañ rek aw nit lañ ci doon aw nit waaye dañuy booloo di sax jotaay yoo xam ne alal waral ko ak bokk waral ko xanaa jëm yàlla rek ko waral dañuy jaarante jaarante boo xam ne alal waral ko ak bokk waral ko dañuy jël yàlla rek ko waral dañuy jaarante danaaral jaxarante boo xam ne alal waral ko waaw ak bokk waral ko xanaa jël yàlla rek ko waral ñun ne wala yàlla yi nga xam ne amuñu ñu ragal amuñu ñu jaax ci seen gannaaw yàlla ñu yàlla waree ñun ñoom waaw bu fekkee yàlla seen xay dafay doon dëgg rek yaa bari dañuy am sama laa xaw ma dëgg ragal ale ko ci ay ma tay wala ko ni ni afro na ngeen ya kay ale ne ne am na ko ni jaat na ja rasul wa kan ko ne ni ni ko ni ko ko ko ra na ngeen daan jana an ko ngeen wa ba ay ma ti jaba te lay ko do ro ya na de de ga ngeen de ko do ro na ya na ka ra ngeen ko do ro na ya na te ra ngeen ko ala no def ma kala ma ngeen ni ka def na wala ni ko ni ja bi ki ti ala ni ka ko ni ko wa ko amna ti ka de de ni ni ay xalaat yoo xam ne jur ak goble yoo xam ne goble jur goble mooy yoo xam ne amul yóbbukaay xot bu am jàppukaay moom lañ la waaw ko ndax xot bu am jàppukaay rek xoo jàppukaay ba nekk kenn mënu naa ne goble te loolu nekkul daa dem kenn mënu ba dëgg la ma xam te te kon kenn naan kaay ya am ne bor boo xam ne mënu yaa naan rek léegi ma xam leen moo tax de affaire yi amul seen cadre amul ay jàppukaay rek te cadre bi dafay def ci naan ak ci koy naan ci naan ba naan ñi dara lekk ci naan mu jeex effet ma bi yooyu yëpp ma xam rek daal aljana mu ma xaram ngale jeexaara dina la jaam jana naa te tey nii ndax ma sotti ko lam ci bakkan wata la ci sotti nag anee xol balaa ñu bëri de lépp loo xam ne bakkan dana ko baneexoo surtout dana ko baneexoo ci seet ñu nga jàng mi nañ ko am de te am aadama yàlla rek xam ne jox te ko rek bët ci dafa bëgg lu rafet lu muy def nopp bi bëgg lu neex lu muy dégg jëriñ bi lu muy neex lu muy mos kenn bëgg lu neex lu muy aneexoo waaw jëm bi bëgg ñu rafet lu mu sonn ñu rafet lu mu fekk am moom xel moom doomu aadama moom cëram lu nekk bëgg teewal moo tax ba yàlla rek ko mën a doy de te am jàng rek ko mën a doy itam waaw su ngeen xaalis dana rek jël ñu daa ci moom daa jàng ñu neex day mën a su ngeen taxasee dëgg dootu leen jël mukk wa tilka aljannatu la aljanna lati aljanna nga xam ne pour waa ga xel leen ko moo ko dëgg sax la ngeen nekkal tam noonu dem ci aljanna gi ñu koy dugg nag xam ngeen leen ko mayam seen jëf ngeen doon def ci àdduna rek jaamu yàlla ka koy dëw tak waaw pour mu taxaadee ca kooka nag yàlla tooñu ko ndax tooñ mooy fakkandiku ci yëfu jàmbur te yàlla ci yëfam la fakkandiku daf ko dafa maandu ci moom rek nga xam nag ne dawal na ci moom jëf di ko yóbbu aljanna kooku ngëneelam la lu ko may moo tax ku jë ku dem aljanna nga ne yàlla moo la yóbbu aljanna santal yàlla ku dem safara itam yàlla tooñu la de dafa maanu ci yow rek yàlla ñu yàlla def liggéey fi ngëneel te bañ ñoo def liggéey fi maanu aljanna ngoo ku ko bëgg na nga taxaw yëpp de ku bëgg aljanna del topp yàlla njëgal njëgal aljanna moo di topp yàlla ak bëgg àdduna loolu la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ñaareel ba na nga àndaale jaamu yàlla yi nga xam ne dañoo hiin yonent na ne na ngeen bëri xarit yi jullit ndax yàlla ci bëri gerte la jullit na moos di jugal nit ci kanam xaritam beneen ñaan yàlla itam aljanna ndax jaam yi nga xam ne dañuy ñaan aljanna waaw yàlla dana leen yóbbu aljanna na ngeen ragal itam yàlla yàlla mu ne waaw man xaafa maqaama rabbi wa naana saamira dina janata yéen maa waa ku ragal taxaw fa kanam boromam kooku waa aljanna la jëm de na ngeen béy itam àdduna yaa nag di bëri jëf ndax yàlla na ne tilka jannatu lati uristuma abnaakum ta'malun dee leen jëf jëf ju baax joo ju fa xel daj rek def ko ndax jenn jëf rek la yóbbuwaal yàlla moo nag moo tax bul xeeb xamuloo ju la ci yóbbuwaal. lakum ñaan na leen saa si aljanna fàcceetum koy koy kësira bu ngaa ji bëri dinaa ci ci koy koy yëpp ak loolu ngeen di lekk kooku koy koy yëpp dañ leen ko indil ci aljanna yaaram loolu ma gën a màgg di leen dund moom lañ gën a force moo tax alxuraan bi dafa di tudd koy teer yi di jeex dañ leen ko jural foofu ci aljanna rek innal mujrimina waaye daway yeddu na xaali doolu dee lañ ci azaabi jaanama ci mbugalam jaanama de waaye ñu yeddu yàlla nag bakar la ñuy fekk te lañ koy dee laayu fakkaru desul doggante ko am ngir seen jam kar fakaraan yi oom ñoom mu diisoona way naag lañu won fi yëpp yi mu biir ci safara rek wa maa farannaahum sooduñ leen nag walaakin lu fi nekk kaana na ko ñu suñ ñoom asaalihin di way tooñ seen bopp rek ñoo tooñoon seen bopp ba yëpp yàlla di muy yàlla rek wa naa daw seen waa ñoom ñooy soxla yow Malick yow Malick Malick malaaka la moo xam ne mooy dëkk yëngal safara mu yëri safara ñun safara nag ñu lay woo Malick li yàq dina àttee li yàq dina rey allé naa ci ñun romb ko borom sa ay Malick wax ak sa borom ne ko ma ñu rey benn yoon rek ñu dee noppalu daañu wax loolu dundal àddina ñaari yoon xaala wax Malick gannaaw dundal àddina ñaari yoon innakum naka yéen maa ngi doon way sax ngeen dindi leen rek bu sax dana sant ne leen noppi leen ñëw leen ci safara bu leen waxati bu ngeen ci gën a dindi rek wala xat bi naa ko buur ne di keneen leen yéen ñun marta di laa ci dëgg indil naa leen dëgg ci laa ñu ñu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala ci mel ci nekk ak sa gën nga bëgg leen kaari woon way ci dëgg di laa ci dëgg rek waaye ñu gën a bëri nag ci mbindeef yi bëgguñ dëgg am atramu am dañoo xare ñu am ren njub am ñoom waa Makka dañoo xare ñu njub moo xam ne ñu ngi ko def ci tefe tefe ni ñu xalaat yonent bi mooy bañ daje ca Daaru Nadwa ñu nañ fàq tefe ñu ñu dee bare yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fay naa na seen yàlla bug ru ma way xare ñu lañu njub dunu de suñ xare ñu njub pour bëgg xalaat yonent ba ah man yàlla yëpp xare ñu naan njub yi ma leen di xalaat ñoom ba noppi ñoo ñoo alaku rek am bay yaxtu gono danañu jartu am anakenum la anas noo dégg bi ñu tërawum mbóot seen wala ñaawum ak ak bidal seen am dañoo def ndax lañuy wax di ko yeloon lañuy wax di ko bidal yàlla dégg ko bale anaam dégg naa doon yëpp war sunu naa te ay yonent sunu yett gono danañu bind la leen dañoom de yàlla dégg na lépp lu jaam di wax dem daf koo bidon dem daf koo yelu te mu foofu ñu la booleeg malaaka moo xam ne lépp la wax ñu koy bindee pour waxal in kaan dem nekkal li rahmaani ñaar ak yërëm dëkk yàlla wala duñ doom ku ne tooy ko yàqu fa ana man awalun arjina maa njël dina way jaamu ñoo njëgële doom de yàlla amul doom de dëgg dëgg fi yàlla amul doom kon yonent yàlla Muhammad mooy jëkk jaamu doom jële ndax jaam yëpp yonent bi gën a mokk moo ci gën a nangoo topp tax na ba sa yàlla amoon doom yonent jëkk jaamu doom jële boobu tawee la wala in kaan dam nekk nag rahmaan ñeela ak yéram jële dum doom fa ana man awal la xam ne maa ngi wedd dina ak wedd jële doom de maa ngi wedd dina yàlla amul doom de subhaan rabbi samawaati tudd na sell borom asamaan juróom yaar wala ne suy juróom yaar rabbil am si kay borom xar amaa yëpp moom lañ joxe nañ wax ko ni ci nar la ba yàq kan yàlla borom de wala ku la waxee in kaan dem nekk nañ amaan ñu la yéen ñoo la dun doom faana man awal la am ñu man ngeer bi way jaam ñu yàlla man de yàlla rek laa jaam du ma ko fàttal boo daal du ma ko fàttal boo te fer hum day yéen wax la doon turu ci seen baatin waaw boo dañuy soxla ci jigéen diine affaire yi ah woo bañ daje yow bu dee seen dëkk yi baaxul yow a doon dana dana dana dem ko tamit dënk dënk dënk waaw moom boo am na fi mooy bu dee xam ne ilaaw moo di suñ jaamu fi sama jaasama yàlla mooy ki nga xam ne moom rek la ñuy jaamu jaasama wa ilaaw kuñ jaamu la ko nari ci suuf te moom rek la ñuy jaamu ci suuf rek mooy yàlla asamaan mooy yàlla suuf wala moom alaaka bi mu aay xale nga mu ci njabteeloon alaaka bi mu aay xam nga mu wax laa indi léegam ne wasa wala kër bëri na wu la si buur bi nga xam ne dara ñaan na ko mu ko sama waati bu la ko asamaan juróom yaar wala ko suñu juróom yaar bu ma bay mu maa la nekk diggante seen waaye ndaw ak nekk la moom yar mu saa bi xam-xam bi sëñ bi kañ mu taxaw rek wasa jaww ji def na delloo leen ina ngeen jëm fa moom yàlla rek wala mu ko moom ci ak dina ñaan yaroon na danañu jaamu ñu doon ñu tur yàlla safaata am ramu de bu fekk dem yàlla julli ñi daañu ramuwante waaye yéefari ñoom waaye du ñu am kenn ku leen ramu de illaa man sayda lu may ka seede na mu ndare ka seede na mu bi xaq ci laa ilaaha illaa muhammadu rasuulullah ñee ñee ramuwante ñee ñoo xool laa ilaaha illaa muhammadu rasuulullah ñaar dina de baatam seede baa ngo mooy kalimatu saarati mooy kalimatul xaq loolu la ko tuddee fii ikhlas kalimatu tawhid waaw moo di laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah de yonent na ne gën ji lu ma wax maa ngi ña ma jëkkoon moo di laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah de loolu te ñoom yàlla moom dañoo xam ko li gën a ko ndax xam ne wax nañu dara ñu ne waruñoo jaamu kenn mu yàlla ba noppi nga gëm ko itam ci sa xol waruñ saa doom walaay ndam laaj nga leen man xalaat doom ci bind nañu leen nga yàqoon ñu dañu wax ne ndaaw yàlla feesee soo laajoon ku ku bind mbindee ñu daal nga wax ne yàlla ko bindee faa ngi ñu rëkk mën a ko def sa teewal na nga def ak ñaamoom ànd ak taxawal lañu وقيل هو أرواح يرد على محمد صلى الله عليه وسلم ما جرى من تبرسنا من هذا ولا ما يعرف كل محمد صلى الله عليه وسلم يعرف سره من يعرف وقيل هو أرواح يرد صلى الله عليه وسلم يا ربي يوم عظمة إن هؤلاء مثل قومه الذي لا يؤمن به ولم تجد تعبنا ما يكرمه في فريق مرهم لا يفهم مرهم وأما كريم te te nañ bal nañoo gëm de buur na ko fas fas dëgg-dëgg xamul nga nit leen waxul waxal salaamun baagat salaamun de fasoo fa taal bu xam nga xam de yow mu nga leen dëgg rek waa te bàyyi leen salaamun ak bayante nekk na ci diggante rek loolu dëkk xarala de